assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu mbokk yi jullit yi nuyub di nuyoob lislaam waaye di nuyoobu sell waaye di ñaan borom bi subhanahu tabaraka wa taala mu doon la ñu yërmandeem ak ak njéggalam mu mel ni nag dañuy dellusiwaat rek ci suñu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam waaye di jotaayu fàttalikonte ci sunu diine lislaam kon bu ñu bàyyee xel suñu jotaay bi weesu ñu ngi doon jàngale alfadail lan mooy ngëneelu jàpp kon ngëneelu jàpp yi bu jeexee dañuy ñëw ci lan mooy toj am jàpp moo tax mu ne faslun li ab buntu la fin nawaaxidi ci way toj njàpp yi nawaaxidul wudu i koy toj njàpp ata dikke na ko anhum jële ci ñoom ahdaasan ay toj <coughs> ahdaasan ay toj wa asbaaban ak ay sabab alaama ca la nga xam te ni sabat sax la ah, ay tojam mooy njàpp kon ahdaasuhu way toj njàpp bawlun mooy saw war yéexoon ak ngalawal mas yu ak mas yu itun ak xayta aydan ba tey kazaaka niki noonee wadd yu mooy wadd yu kon dafay mel ni liy toj am jàpp dañ koy séddale ñaari xaaj ba ca njëkk ba mooy lii sabab doomi adama bi nga xam ne yii doomi aadama bi moo sabab waaye ak beneen xaaj bi day nekk loo xam ne dafay tukkee ci doomi adama bi ci lu mel ni saw wala lu mel ni ngalawal wala masu wala xayta wala wadd lu mel ni buntu suuf bu doomu aadama nag ngi génnee lu mel ni ngalawal wala xayta mooy dem woon ñaar yooyu mi ngi jóge ci buntu suuf bu doomu adama te day yàq njàpp mu limaat masu yu ak wadd yu maj yi moom dina ko leeral ci kanam wadd yu nag mooy ndox la mu di tax moo xam te ni dafay génnee ci buntu sawukaayu doomu aadama bi ci ginnaaw lu ëpp lu muy ñëw nag mooy ginnaaw bu sawee ba pare wala mu nekk ku seere bu seeree nit ki bu seeree dina faral di ko génne wala it nit ki seere gut waaye mën naa amee ak feebar ba xaw a néew doole mel lu manqué deret dina ko faral di génne moom nag ndox mu oyof lay doon mu xaw a tax waaye bu génnee ci doomu aadama li li muy waral ci moom mooy da koy raxas dem jàppewaat ndax jàpp njàppale day yàqu te mën naa dem bàyyi sax ba nit ki ci wanag ba génn ba dem bay war a jàpp muy door a génn kon moom lu jar a bàyyi xel la moom waddi moom mooy nekk noonu mu ne asbaabuhu ay sababam al iqmaau mooy xëm wa naw nawmun ak nelaw assaqiil yay aji diis wa shukru ak màndi wal junuunu ak ndofte fax fas watul yaa nabil yow aji xelu ji mu ne bokk na ci yi nga xam te ni mooy sabab yi nag mooy li mel nit ki dafa xëm bu xamee ba ximbiliku day dem jàppiwaat ndax xamut ba xam def na ci liy waral jàpp ci diggante bi wala déet ak bu nelawee nelaw yu diis day dem jàppi nelaw yu diis nag mën nañ koo takk ci nit ki bu nekkoon ci am néeg am ku fa dugg ba génn te ko kon na jàpp ne nelaw yu diis la wala mu yor dara ci loxoom moo xam kurus la wala lu mu mën di doon jekk mu nelaw ba loolu rëcc ko ba wadd te yëgu ko boobaa tamit mën nañoo jàpp na nelaw yi diis ak ku màndi ki màndi tamit bu màndee ba ximbiliku jàppam ko ñu ak ndofteem bu ko waxee nag mooy koo xam te dafa am ay rab wala muy crise yooyu yëpp bu fekkee daf ko dal ba mu ximbiliku boobaa jàpp jàppuwaat ndax jàppam yàqu na te xamut baxam def na fi li war jàpp la déet ndax anatut ak sagoom wa xublatun ak fóon bil an fi ci bakkan wa bil fammi ak ci gémmiñ minan nawaaxiri bokk na ci yi am njàpp bi xawlil xal mi ci waxi sang ba wa massu marati laal jigéen lil farji ñeer ab pëyam kasaaniki noone bi sartul iltaafi ci sartub lunkal ga paraaxi na nga sàmm almaqasa jàppuwaay ba wa masukul mar'ati ak la jigéen in xasata ndéem jublu na ca li lazati ñeel bànneex awlaa wala déedéet wa xad wajatta tamu am ko ca mu bokk na ci yi am njàpp mooy fóon ci bakkan wala fóon ci gémmiñ mais bokk na ci yi toj am njàpp ndax nit ki bu dafa fóon moroomu nitam ci aw gémmiñam wala mu fóon ko ci feneen fu dul gémmiñam rek tam jublu ci bànneex te yu ci ëpp am fóon moom day jublu nit ki ci mu bànneexu ci kon moo tax mu ne bokk na ci toj am njàpp ak jigéen gi nga xam te ni dafa laal sàkkaraam maanaam dafa laal ab pëyam jigéen gi laal awraam ci loxoom ci tenkam loolu du yàq njàpp waaye nag bu ca lunkalee ab baaraamam wala mu ngëb ko ci ay loxoom bu boobaa la doola yàq njàpp am na ñenn ci borom xam-xam yi sax ñu dem ba wax ne jigéen moom laal awraam ak mu ko mën a laale du yàq njàppam mu ne tamit laal jigéen wala jigéen gu laal góor goo xam te ni bi mu koy laal def cee jublu bànneex kon loolu day yàq njàpp moo xam nag bam ko laalee am na ci bànneex mais amu ci bànneex te fekk ba koy laal jublu woon ci am bànneex rek boobaa bu ko laalee njàpp lu bu doon tamit daf koy laal waaye bi koy laal jubluwu ci bànneex waaye fa mu ko laalee rek yàlla dogal mu ci bànneex boobaa tamit njàpp la yàqu kañ la ci bañ a am njàpp lu toj mooy ba mu koy laal jubluwu ci bànneex te amu ko ci jubluwu ci bànneex te ko même fóon biñ doon wax tamit am nañu wax ne bu doon tàggatoo nga xam ne tàggatoo ak moroomu nitam ko ngir yërmande ko am ci moom yërmande wala ñeewante wala dara te amu ci bànneex booba jàppale du yàq moo tax mu ne kazaaka ni ki noonee massu zakari laal sakkara yaa saax yow suma àndandoo bi bat ni asbuuxika sa biir baaraam aw biir raaxi wala ci sa biir tenq mu ne tamit góor gi bu dee dafa laal sàkkaraam man dafa laal awraam ci tenqe loxoom maanaam ci liy xonq xonq ci biir loxoom maanaam tenq li booba lay yàqu njàppam wala mu laal ko ci cati baaraam ci diggante baaraam ci wet yi boobaa tamit day yàq njàppam waaye tamit fekkee nag ba mu koy laal dafa dëpp ab loxoom maanaam dafa dëpp ab loxoom laalee ko awraam bu boobaa njàpp la du yàqu wala ba koy laal dafa fekk mu soloon ab caleçon maanaam dafa jiital dara wala slip lu néew néew daal bu amee lu dox ci digganteem ak loxoom bu boobaa njàpp li du yàqu du yàqu kon yooyu bokk na ci yi nga xamante ni dafay yàqu jàpp mu ne wa mu xidun bit ak aji woolu ak laabam sàkka ci sikki sàkka xadas ci toj ma aw jaba war na moom alwudu u jàpp man ka nga xam te ni baax sa gëstu na mu ne koo xam te ni ne dafa jàpp jàpp wóor mu leer na ko jàpp na waaye mu dem ba ci biir muy sikki ba xam jàpp li toj na wala tojut booba jàpp lu yàqu na day jàpp ne kon jàpp lu na waaw loolu mooy li gën a wóor kon day jàpp ne jàpp li yàqu na nga xam ne dafa jàpp ba pare leer na woon jàpp na waaye mi ngi sikki saaka ba xam jàpp na wala jàppul kon kooku jàpp nañ jàppale yàqu na mu ne tamit wa in lam yakun néem nekkut mu was wisan di jax-jaxal xelam muxtabilan muy aji yàq xelam fala ihaada déet baamu ci moom mus jalaalu man di doon mu nekkat fekkee nag bokkut ki nga xam te nii dafay jàpp ba pare waaye nag am xelam day jax-jaxe nga xam ne kii daal sa bis bu nekk dina jàpp dina jàpp menam jàpp moo xam suba la moo xam ngoon la dina ko ci dal bu jàppee rek day si sàkka ba xam jàpp na wala jàppul wala jàpp toj na wala toy mu koy dal chaque jour suba wala ngoon mu ne kooku nag ab xolam moo mel noon day jax-jaxe kon kooku moom bu jàppee ba pare buy sikki saak rek day jàpp ne njàppam la yàqu yàquwut kon kooku bokkut ak kam njëkk a wax kon kooku kii day jàpp ne moom jàppam mi yàquwut sagam lim koy dal bari na kon dañ ko koy jéggal day jàpp ne heure sikk saakaa rek na jàpp ne kon jàppam tojut mu julli ndax loolu seytaane da ciy jaaree doomu aadama mën naa dem ba yàq ab xolam di ko sikk sàkka loolu bari di ko sikk sàkka loolu bari dem ba yàq ab xolam moo tax amaana bu ko defee rek dem bàyyi ko noonu bu ëllëgee mën naa deñ kon kooku buy sikki saaka nga xam ne day tàmm bis bu nekk suba si wala ngoon si nekk sikki saaka ba xam jàpp na wala jàppul wala jàppam toj na wala tojut kooku moom day jàpp na jàppam tojut rek mu bàyyi ko noonu mën na cee julli mu ne wax aw jabat waral na lil mas yi ñeel mas yu comme mas yu ba mu la doon wax ci kanam xas la zakari raxas sakaraan min duunil unsayayni ci lu dul ñaari ci toujours ñaay yooyu àndandoom ya ahlul nazar ñoñ xool wal mas yu mas yu maa un am ndox la xaarijun bi aji génn bi nazar ci ak xool lazate ñeel bànneex bu xalaat bu ndaw wa bi tafakkuri wala xelaat mu ne nag waral na nit ki bu génnee mas yu mas yu nag mooy lan ndox la mu di tax muy génn ci buntu sakaraas doomu aadama waaye nag bu génnee ci moom ba pare li waral moom mu dem raxas saakaraam gépp lay raxas day raxas saakara sépp ba mu des ñaari way àndandoo yow yooyu waaye nag saakara sépp lay raxas kon mas yu bokkut ak waddu yu bu dee waddu yu nag du jar a raxas saakara sépp da ngay raxas rek comme ku tuur ndox ba pare ni ngay raxasee noonu ngay raxas dem waaye nag bu dee mas yu da ngay raxas saakara sépp mas yu nag mi ngi génn ci nit ki muy xelaat jaxasoo ak jigéen wala muy seetaan ay photo walla muy seetaan télé di ci bànneexu bànneex bu ndaw walla mu koy xelaat lu bari da ngay gis ne ndoxam dina génn ndox moomee di génn nag moom lañ tuddee mas yu bu génnee ci moom nag li war ci moom mooy mu raxas sàkkaraam sépp du jara sangu waaye na raxas sàkkaraam sépp ko defee nag bu dee day jàpp mu dem jàpp bu dee taa jàpp woon jàppam lay toj kon mas yu noonu dañ koy raxase te mas yu tamit kon noonu lay génn ci doomu aadama muy xool jigéen di bànneexu ci wala mu koy xalaat wala muy xalaat lu mel ne ay jaxasoo góor wala mu koy seetaan yooyu yëpp dafay waral ndox moom di génn ni nañ tuddee mas yu du waral sangu farata ku ko génnee doo doo doo sangu farata de danga koy raxas rek xam ne fekkoon jàpp nga rek jàpp lu ko kon loolu moo nekkoon suñu bindu tey ci wàllu yi toj njàpp mel na nag leeraloon nañ ko ci leeral gu yaatu ci téere bi wax xam say lépp ñu ko ci wolof leeraloon nañ ci yëpp leeral gu yaatu kon nag ñu ñaan suñu boom may ñu dégg ak topp ñu ñaan suñu boom dafa ñu tawfeex dafa ñu mujj gu rafet jégal ñu suñuy bàkkaar defal ñu yéen mandéem di sant ñiy teewlu jotaay bi yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ña nekk bitim réew leen jox di daje bi ak bii di ñëwaat ak jàmm insha allah in uridu illa al islaaha ma sataxtu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa taala wa